reportu euh, élection présidentielle bi nga xam ne euh, on en parlait comme ça par des voies souterraines jékki-jékki Omar yëkkati ko ci kaw ba ñu bari jàpp ne euh, lu ñu namm la wala ballon de sonde la ki a intérêt à un report de la présidentielle de 2024 bon il faut savoir d'abord lan la réew mi war a def fii rek 2024 ça c'est important ak lañ wala la war a def pour am élection jag en 2024 est-ce que tension bi fi mu toll nii mën nañ ko gérer dans les moyens dans les dans les meilleurs termes ba àgg ci 2024 am élection bu baax wala élection boo xam du indi tension yu gën a garaaw il faut savoir ba xam Euh, décision bi nga xam ne moom la xalif général des mourides jël jëm ci Touba booy déployer électeurs yi ci yeneen localité ñaata temps lay jël ak et c'est important je pense que paramètres yooyu yëpp il faut ñu mesurer ko tey boo jëloon sax wala am ay procédure d'amnistie wala dara wala révision de procès mu jëm ci Karim Wade ak Khalifa Sall ñaata temps lay jël et cetera yooyu c'est important naka la ñuy mettre en place la logistique du parrainage et cetera et cetera mi ngi dépendre ci temps bi nga xam ne moom la ñuy soxla flemme boobu pour def ko maintenant le plus important mooy climat bi régner dans le pays parce que l'idée aussi c'est pas de faire des élections pour que après réew mi yàqu. parce que man yow da nga favorable ci report. non non non non non hmm. man fava euh, euh, euh, même man favorable ma ci dara défavorable ma ci dara. Hmm. à différence de samay détracteur xam nga lan la man faraluma kenn xam nga man lan moo ma intéressé hmm? réew mi jaar ci yoon fii réew mi toll choc yi muy subir réew mi amortir ko ba buñ ci génnee génn ci jàmm c'est ça qui me préoccupe man parce que am na climat de tension yoo xam ne boo ci defee élection problème yi ngay créer moo ëpp problème yi ngay régler parce que xam nga baax li ma la bëgg wax donc l'idée c'est de savoir lan la dialogue politique bi joxe d'abord parce que loolu déjà à partir de conclusion dialogue politique bi rek xam lu baree bare est xam nga baax li ma à partir de là ñu mën a juger parce que xam nga Sénégal dañoo gaaw a wax maanaam da gis koo xam ne day nekk di apprécier ak di juger te xamul sax les vraies données <laughs> mais dialogue politique déjà bu tegee sur la place agenda bi rek dinañ xam ci ci est que xaj na fi fii ak 2024 de